deux poids deux mesures bi ñuy dénoncer aussi. waaw bu dee ça vient du pouvoir dara du leen arrivé. bëri na ay cas exemple. waaw ñoo xam ne wax nañ ci wax yu rëy. loolu dëgg la ba tey woowuñu leen. mais la mooy euh, ki ki nekk ci pouvoir ak ki nekk ci opposition ne dafay daaneel pouvoir ñoom ñaar du ñu bokk àtte. ah déedéet du ñu bokk àtte. ndax lan ndax euh, pouvoir dafa am ay privilèges yu mu àndal. Hmm? ah pouvoir pouvoir ñaar la moo doon ñu li ñuy jàngale hmm. pouvoir. pouvoir prise de décision la ak privilège. ñaar yooyu pouvoir ku am pouvoir rek c'est parce que da ngay décider ba pare da nga am ay privilège. qu'appelez-vous privilège. ci cas bi ñuy wax nii nii nii wàllum. cas bi ñuy wax noonu ak wax bi ñuy wax mooy yow euh, jege nga njiitu réew mi yow am na loo xam boo ko waxee dara mën na la see bañ a fekk. loolu impunité la. loolu mën na doon impunité waaw mën nañ ko tuddee noonu. te du que euh, déedéet du yoon xam nga euh, nguur nguur dafa ragal ku taxaw ne dama lay daaneel. nguur da koy ragal day kooku bu defee dara rek nguur bi mu naa jóg. loolu mooy les pouvoirs excessifs du président. non loolu xam nga loolu sax du yëfu président parce que président euh, mu daw da nga da nga wax fii lu am solo. Euh, gis nga ñi foog ne président day toog bureau am jël téléphone am ne euh, yow boo ko yàgg directeur police demal jàppal ma kii procureur tëjal kii. Euh, juge euh, génneel ki non président du doxalee noonu. mënul traité cas par cas. non seulement loolu mënul nekk mm-hmm. benn ñaar loolu saaga la pour alkaati yi gendarme yi ak magistrat yi mais ñoom loolu duñ ko nangu maanaam ñoom ñooy jugé nga bëgg a wax apprécier c'est-à-dire tey alkaati boo xam ni dafa am euh, euh, manifestation manifestation bi préfet da koo tere mm-hmm. Modou Awa Ndiaye yow nga ñëw bokk si alkaati bi da lay jàpp parce que da nga bokk si manifestation bu ñu bu ñu bu ñu araamal mm-hmm. alkaati bu la jàppee ñu yóbbu la Euh, jàllale la si procureur procureur nga ñëw mu ne la yow danga bokk ci manifestation bu ñu tere lu tax nga def ko yaa tooñ léegi nag waxatuma laaj nag ki taal yi fu jàmbur. Mhm. toj ay Auchan ba pare euh, bés bu ne dama koy wax. en 30 secondes temps mooy mooy mooy Modou Awa yow su fekkee euh, ku nekk ak sa liggéey préfet liggéeyam mooy saytu kaaraange ñëpp. Mhm. léegi moom liggéeyam. daf si bokk moom mu muy saytu xool ndegam lii du am débordement ndegam lii du am infiltration. ba pare ba pare mu jël responsabilité mais yow sa bëgg-bëgg rek nga xam. ak contre bi nga contre nguur.